jamono ji Sénégal yu baree bari daan nañuy jommi jaaxle jëm ca ka nga xam ne rek moo di président Sall mi nga xam ne jamono ji nag moo jiite réew mi di Sénégal moom président Sall ginnaaw photo bi nga xam ne jamono ji nag ña ngi koy gis fu nekk nag ñu koy partagé ci internet bi jamono ji Sénégal yu baree bari nag di ca commentaire jëm ca ka nga xam ne rek moo di président Sall mu di rek photo bi nga xam ne da cee ànd ak ki nga xam ne moo di Awoush Kitty moom président Sall moom Awoush Kitty mi nga xam ne jamono ji nag nag ñëpp ràññee nañ ko ka nga di président Sall saa bu di ko jëme ci ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko waaye nag la jaaxal ñu bëree bëri moom ci ginnaaw nag dadaa yëkkati ay kaddu yu ñaaw di ko teg ci deru ka nga xam ne moo di président Sall jamono ji nag ñu gis ne nag dafa dellu ginnaaw ca loolee jëm ca ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko itam di ko saaga di ko wax lu nekk di saaga ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak Ousmane Sonko moom Awas Kiti moomee nag euh, jamono ji nag la ñu gis rek mu ànd ak nga xam ne rek moo di président Sall ci ab euh, photo loolu nag Sénégal yu bëree bëri nag daat si job mi jaaxle lool ndax ki nga xam ne rek dafay saaga di wax ay wax yu ñaaw jëm ci ay doomi jàmbur kooke euh, lan la defal Sénégal wala itam lan la liggéey ci réew mi daal ba ki nga xam ne rek moo di président Sall di ànd ak moom ci ay photo loolu nag jaaxal nañu bëri ci réew mi di Sénégal